parce que xam na Alaaji Aliko Dangote te xam na lu muy def li mu li mu nettali mooy ñoom ñaar ñoo bokkoon bokkoon nañ classe moom mu rawee ko benn classe mais ñoo ñoo ànd ba fii kon ànd boo xam ne ëpp na cinquante ans quarante à cinquante ans ñuy ànd ñoom ñaar moom nag su déggoon leneen la koy naroon bett mais li mu dégg xam na ne loolu la def loolu lay def parce que moom doomu Kano la oh, te li mu fi mu jógee Kano dem tabax lu toll nii Dangote ci Nigéria ak ci Afrique nii rek la mënoon dem su mu nekk yëpp ku ko xam xam ne ku ku humble ku humble la dañ ku simple la daal nit ku ku ku woyof merci pour nit ku woyof et bëgg na fu mu nekk ak ñu mu nekkal mu amal leen jëriñ jëriñ yu yu am solo nee na tamit li mu ñëw fii nii kontaan na si te bëggoon na gën a des ak ñun ñëpp fii nii mooy frère am yeeg ñëpp ñu fi nekk parce que Sénégal ak Nigéria ñoo bokk lu bëri bokk nañ lu bëri muy religion bi culture di aspect yu bëri Nigéria ak Sénégal bokk na maintenant suñu rombee foofu am na yeneen yi nga xam ne business la il faut que tamit Dangote protéger sàmm turu entreprise am turu famille am famille bi du Dangote kese mais lim na yeneen famille lim na Bayero Danta Temps yi famille yooyu yëpp da ko si boole fu mu sàmm tur boobu and I pray we will have more Dangotes who will be of assistance to the societies and the humanity at large to my brothers and sisters here I thank you for being here with me I appreciate bu paree foofu nag ne bëggoon na gën a toog mais jot moo amul uh, mais xam leen ne daal uh, gëm leen ne saa yu fi ñëwee xelam ak xalaatam yëpp mu ngi fi te mu ngi ñaanal ñëpp ñu fi tay kontaan na si I agree it is a son of Kano. C'est l'un des moments les plus heureux de sa visite. Donc, euh, il a été très satisfait. Beyond my imagination. Oui. I'm really satisfied with what he's doing. C'est, je traduis, hein. c'est l'un des moments les plus, les plus heureux de sa visite. Uh, il a eu un agréable moment avec euh, uh, Madame Baudet. Il a fait le parcours jusqu'ici voir ce que le fils de Kano, pas seulement le fils de Kano, le fils de Kano, le fils du Nigeria et le fils de, de l'Afrique est en train de réaliser. ce qu'il a vu dépasse même ses, attentes, dépasse même son imagination. Et en ce moment, il, prie pour que donc il y ait plus de Dangote encore et que ça dépasse les horizons d'aujourd'hui. et que euh, plus tard, ils puissent étendre le Nigeria au, au, au plus, plus, profond, plus profond, profond de l'Afrique. Donc il est satisfait, il félicite.